Diobass Info TV lan nga wax ak Diobass. ci taxaway bi kon xam dañuy door li di waxtan wi laata bobu dafa am prestation bo xam nak euh, chaque année dañ koy def euh, li di cadre Moustarchidine yi ñu fas yéene ubbi lii di cérémonie bi. ñu woyal lii di waxtan mais particularité édition 2023 moy dëkk bi dañuy rendre hommage kii di imam Mansour Tine Euh, moo tax ci kanam njobootam dina am teraanga boo xam ne wax dëkk bi ñoo ko def jagleel ko kii di imam Mansour Tine pour ñu rendre ko hommage homonymam di Mansour Faye dina am aussi taalif bi mu def ci kii di imam Mansour Tine kon fi mu nekk nii dañuy jox kade euh, yi pour ñu def euh, seen prestation ñu door lii di waxtaan wi ci pour kilifa yi fësal seen kàddu si jamono bajuan si yàlla tey jii góor googu de moo sol lu weex eh, tàll si goudron bu ñuul te dara taasul simo tasare eh, te saare xam-xam leeral ko fi Sénégal yëpp ak li ba tey jii foo toll rek di dégg naasiril xaq bil xaq di jolli fu nekk إن الوظيفة لقرايا آسمة كذاك إهلمها في كل بگاه تانه إلا سوزها مانگا چاہتا ہوں رسول اللہ نے کے لیر دیگو تو برک مومو برسول گنے آدھو دیگو تو digotok banyak juga aku sih waaye tey jii nag ñu diggoon ak yéen si wàccu leeru sallallahu alayhi wa sallam fa muy tàmbalee na laylan harubati halla duruufi rajabi summa al munaadi yunaadi musmi al fahim mu dija dem dija dem fu muy وقال ويلكم يا أمة مؤمنة في هذه درة أعلى من الجنة كن يجري الدنيا ينحرق توتي يدقق سيولي الله dulu في رجب ثم المنادي ينادي باسمها الفحيم wala ndeysaan bu du su duur woow nga xam ni si jamono leer baa nga wàcc si guddi gi ay juma jóge si Abdullahi jëm si ruuxuma yaay Amina waaye li si yéeme mooy am na luy yuuxu ca kaw ngay dégg baat ba waaye gisoo jëmm ja ma nga naan tey jii de leer googu nga xam moo war a leeral penk ak sow yëg leen ni penk na si guddi tey jii sallallahu alayhi wa sallam qad ala fi bi te gën a yonent doon bi wàcc na mu leer ga wàcc na ci xayma boo xam ne moo gën a dee gën a seel xayma yi. kaalal malaaiku abwaabu sama futixat teral sang bu tedd boobu sallallahu alayhi wa sallam laynul habbu yahzuruhu junuduhu wa huwa rihdidun min as-sadami keroog iblis yuuxu na onk na bind na nah boo ko waaye koo si xool rek di nga yëg doole ja dem na kanam nga soppeeku ndax ki war na saxal si ngeen empêché ko diggante boo leen mu rafet ngeen fexe ba yàq ko waaye leer gii di leeru Seydina Muhammad mooy doon défense bi taxaw seen kanam ba doo leen mën a si doomi aadama yi gëm yàlla ngir yàqal leen. xare la ajjana ñaan Sénégal yalla na fi yàlla wàcce lu sedd guy barka bi salatu sallam ku ñu def faatiha rek salatu faatihi ayatul kursi lillahi falax naas yi tijjee ko salaatul bismillah ñu ngi jël kàddu ci turu dëkk bi kilifa yi fi nekk ak sama tur man chef lay nun sant nañu yàlla bu baax ah ñu koy gërëm bu baax jële ci man ak imam mi Eh, ñi fi nekk ñëpp ci organisation bi ñi ko taxaw bu mel nii ñu ngi dalal Oustaz Diène di ko jàppe comme Seydi Aboubacar Sy moo teew fii kontaan ci lool sunu xel dal ci lool ndax mooy ki ko fi yebal mbokkoo benn kot bi noonu la gisat ñu ngi koy sant ko bu baax di ko daal jàmm ci dëkk bi di ko dellu si ci suñu kii nga xam ne bu ma ko waxee it ah war naa ko wax rek te xam na xam ñu muy Alioune Sarr mii di doomu jungal lii noo ko bokk ak moom ñu koy gërëm bu baax a baax ah kii di préfet kilifaam la fi toogal kon ñu ngi ko jàppee comme kilifaam di ko dalal di ngeen ñëw ci jàmm ñibbi ak jàmm ak délégation yi ngeen dal yëpp conseil yëpp ak ñi fi teew ñëpp ñu ngi daal yëpp mais dafa am ngërëm la yoo xam ne il faut ñu muy Alioune Sarr dinañu gërëm. dañ la gërëm bu baax a baax a baax gërëm sous bu baax gërëm gendarmerie bu baax ak waa sant yëpp ñu ngi leen di gërëm ndax lii di fi leer tey lépp ak li ñu fi jëfandikoo yëpp ak eh, yoo xam ne mën ñu ko wax ñii ñoo ci ëppale ñoo ko fi def. muy monsieur Alioune Sarr ànd ceeg collaboration ak suuf ak gendarme ñu ngi fiy yendu parce que mën naa sama kër la ñu yendu teel nañu ñëw démb ñëw nañu ngir lii kon dañuy jël si cant gi yëpp nag jox ko suñuy sëriñ yi waa Tivaouane waa Jungaan ñoo kontaan. kontaan ci yàlla kontaan ci yonent bi kontaan ci wàcc yàlla ku xam jugaan xam ni mu rek ngaan di nga kontaan ci ngeen dégg ni wasifa bi man day mën naa maa fi yi mat ñaar fukki tuuti ma ne ndax affaire ba mais duma tardé wasifa mais jungaan duñu tardé benn li ñu digle li ma digle ak teewoon digle duñu ci tardé suba ngoon xalis juma yëpp ñu ci tar kon duñ ko gërëmee kenn lu ñu suñu bàyyi ak waa Tiwaawan coow lii yëpp ñëw na kon kuñ fi yónni nit ñoo ñële lay jàppe kon sëñ bi dégg si boo demee nga leen leen waa jungaan kontaan nañ ci yéen ndax benn séeréer daw leen Sénégal ngir diine islam bi mu ngi am téeméer fi jungaan kon kenn Sénégal ñen ñoo ko def waaye teew ñu leen sant bu baax di di kontaan ci yàlla daf def jàmm ci réew mi yàlla na def jàmm ci réew mi ñu ngi sant yàlla bu baax di gërëm ñi nga xam ne itam ñoo organisé mbir bi ñoom Babacar ñoom Ibrahima ak comité bi yëpp président baa ngi fi wax dëgg alhamdulilah rabbil alamin dama xam ne dootuma wax moom moo tax may profité te ngërmande mi dafa raam su préfet ñu ngi lay sant kilifa gi ñëwee nga ko waa Diouga sant nañu gërëm nañu waaw ah, ngeen baal ñu wax daal loo xam ne ko wax ñàkk wax. ñi nekk jigéen ñi di orga nekkoon ci organisation bi yëpp ñu leen di gën di sant jërë jëf. leen nuyu nuyoo bu ñu lislaam boole suñu borom muy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. nuyu nuyu suñu sëriñ ci sëriñ nga xam ne. si Moustapha Sy Al Amin mu waroon ñëw sànq mu wooñ ci Baye Khalifa Diagne mu joxe ngant ku ne xaw na xam na réew mi nu mu tëddee mais amoon pas-pas pour mu ñëw nee na xamal waa Jungaan yëpp gamu bii gamoom la parce que waaye juram la daan àndal fii ñuy toog ba guddi ñu doog dellu te ginnaaw moo ñu jàppal bés bi amoon yaakaar mais jamono bi nu mu mel nii moo tax nee na mu jëggal waa jungaan yëpp ak waa jubaas mais ñu xam ne ah ku mu yónni tamit doy na ko biir doy na ko biiti kon sëriñ Mansour ñu lay nuyu di la dalal jàmm di la dalal fii si junga jungaan comme ni ko sëñ Babacar waxee rek fii mooy seen dëkk ñu lay nuyu di la ziar di la jox ca wàccuwaay di la ñaanal aussi ah li nga ci réew mi si jobaas yal na la yàlla jàppale nañ ci yow parce que bés bi ko ak ñun bu gamu bi melee dugal ngi sa loxo bu baax a baax te gis nañu yal na ko yàlla sagal yàlla suturaal ci barke Sëriñ nuyu tamit suñu marraine bi soxna muy représentant yeesal de la commune de Notto Diobass ba pare nekk tamit commission santé de la commune de Notto ñu koy ñaanal yàlla jigéen la jigéen bu jambaare la ànd na ak ñun li war a mayu ko mais ñu koy ñaanal yàlla chef de village bi dara la ñuy nuyu imam yi nekk si dëkk bi yëpp di ziar ñuy nuyu tamit waa ñi nekkoon si waañ bi waa daayira ali baaxul xalifa ki ko jiite di Serigne Cheikh Tidiane Faye bu baba gis ngeen waañ bi ñoom ñëpp a ci nekkoon yëndu ci jaayante xajal ñu sax waa jugaan ci waañ bi kon ñooñu ñu jara ñaanale te loolu dañu amoon ndigal bu wër ndigal bi jóge ci imam Mansour Tine ak oustaz Alioune Diop ñoo leen joxoon ndigal ñu dem ci sëñ Moustapha Sy Al Amin ñu naan ko sëñ Daaru sëñ Babacar Sy moo leen changé tur bi mu ne leen ñu wax Hibaahul Khalifa soldaaru sëñ Babacar Sy boo ko waxee rek day am leneen lu muy ne kon ñooñu jar a ñaanal yal na yal taxawaay bi te Samba Samba Samba Thiadou moo nekkoon représentant bi ñu ngi lay gërëm ak équipe bi yëpp bàyyiwuñu kenn mag ak ndaw góor ak jigéen yal na yàlla fay ñun membre bureau bi maa ngi gërëm ñëpp parce que membre bureau bi bi ñu waajee gamu bi ba léegi kenn toogul muy guddi muy bëccëg fu ne ànd nañ ko kon ñuy sant mbooloo mi fi nekk yëpp di ziar ñëpp di baalu ak euh, di tamit beneen cant tamit dëgg jigéen ñi gis nañ seen taxawaay gis nañ taxawaay ñuy nuyu tamit suñu famille balaa may fàtte candu mel ni ñu nekk ñoom tamit ñu jar gërëm lañ parce que ñëw nañu ak seen doole wax dëgg yàlla bés bi jàpp nañ ci ñu xam ne doomu jungaan lañ ñu leen di ñaanal yal na yàlla fay leen yàlla dolli leen kattan yàlla suturaal leen ñuy gërëm ñëpp xam naa wax bi muy bugg a gudd ah lu mu siy juumal xam ne mata gi doole kon loolu day jaar aussi am seedeel la ko monsieur le maire kon ah, di wax aussi teewaayu kii di Idrissa Diop nekk doomu dëkk bi nek coordinateur aussi pour euh, daire Tijaan yi nekk fii ci Diobass waaye itam euh, di euh, fësal aussi teewaayu seigne Babacar mi ak ci sànq ak délégation bu am solo bo xam ñom ñep teew monsieur le maire nak ak monsieur le sous-préfet da am ko xam ne ko wax nañ ko ci délégation oustaz Mansour Diène nek gor ci dëkk bi nek dom ci dëkk bi muy El Hadji Khalifa Diagne nekk goro ci imam Mansour Tine bi ñu jàppee bés bi ba léegi lépp lu ci war mu ngi koy def nelawatul ba yàndoo xam ne bés bi bésam la kon Khalifa ñu lay gërëm la sant sa taxawaay rafet na lool mën nañu wax ne yaay taawu imam kon jërëjëf xalifa euh, Diagne ñu ngi lay gërëm la sant kon xam naa day jëbal kàddu gi kii di Mansour euh, Faye mu def euh, benn témoignage ci turam boobu di imam Mansour Tine di ñaan rek yàlla na yàlla yeesal yërmande ci kawam ak mboolem mbokku jullit yi ñu jiitu barsa tey jama doy way sa mbër dee taxara baat waa ci nu doy way sa mbër bu dee taxaram tey maram ba fekki la ay ma sootin jëjëf waaw tey ñu baat waa ca nu doy way sa mbër bu dee taxaram tey maram ba fekki la bismi rahimi maa ngi door di marsi yàlla sori sudur wax li mel ni li bi door lii ci wolof laa ko defal lool ci nun jaajëf waay tey nu baat waa ci nu doy way sama ku dee jaxaraam tey maraam na fekk bismi rahimi maa ngi door di marsiyaalu soxli sudur di wax lu mel ni li bi door lii ci wolof laa ko defal ay Mansour góor gi ñuy delloo jukkal moom ma tàggaleeg réer alxaaji Mansour Tine keroog ba ma jaayante jeeg moom ba mu ñaanal laa tàggoog réer moom Mansour Tine bay Mansour Tine jaajëf waay tey ma baa tin jëbaaf leer na yaa ko jëf ku dem Dakar wala Jobaas maa nga ñëw jumaan nga waxtu timis wasifa yi riir xaralay di riir nga xam ne alxaaji Mansour Tine wàcc na waaye Mansour Tine jaajëf waay tey ma baat waa jama doy way sama Ibrahima dem kon junga na waxloo مقبول ومقبول محمد محمد محمد عاوتي فاهمت فاهمت soppee Baye Mansour fi yàlla day am ci yaay docte ci ya makwal masakini Mamadou Mansour miskin yi nee nanu xalaas jungaan nee na fu ñuy jëlee ci ay balaas ku ñuy jàngal baasin min marata muy ñu dépasse alaaj mu sóot jungaan leer na yaa ko jëf wasifa yaa ngi riir yaa ko jëf imaam yaa ngi yaa leen jàngal Mamadou Mansour ñàkk na Mamadou Mansour mi mu fan baayam journal ka yaa yaa sanadi ci diin yaa amawal masaakini tin yaa ka sedd ker doo tuju loo aay kër maa ci xam saan na ndoo du sol sagar alxaaj Mansour tin jaaraama wàcci nga yow mi doon baay Ibrahima ma jëlee woon ci guy ba boole ñëpp muy benn Omar Mansour ñàkk na jumaa ji jooy nora yaa jóge ci aw ñëw daal jàngu jàngal gaay baas yi Omar Mansour tin alaaji Mansour ku ñëw jungaan ba xool sóoróor ga ñëpp ñu xam ni jàmbaar bii nee fi tëdd tey Mansour mii ci kanamu jumaa ji may jooy te noppee gu ma Mansour amaanu moo di góor moo di góor yaay gar ni yaay gar seen mi ñi dal ci moom dégg nga lu ne te gerte woo amoon naqar Mouhamadou Mansour danaan ma Mansour yaag Seex Tijaan ak Adama na ngeen ànd te dem na loo yéen ay famille andi leen te dem na loo seen mu indi ko fii ci jungal loolu yaakaar naa kuy dund soxla nga wér gu yaram dund rek soxla nga wërgu yaram état du Sénégal jaarale projet bu am solo ci mairie bu Notto mu ñu war ko samp fii ci Junga Ibrahima itam mérite nga jaajëf parce que bi mu la ko waxee yaag chef de village yéen a taxaw ba fi mu war a nekk mu nekk du ma toj yax yi nag monsieur le maire moom la ñuy jox kàddu su boobaa nag dina wax kàddu boobu ban kàddu mais nañ jàpp ne daal gamu bi bii ànd naa xéewal bu rëy rëy monsieur le maire nag dina toj yàq bi monsieur le maire vous bu baax monsieur le sous-préfet monsieur le sous gërëm yëppante nuyoo ci sous-préfet Babacar Diagne di ko gërëm ci CLD bi ngeen organisé pour que bés bi nekk bés boo xam ne bu ci mucc ayib te gis nañu ne. taxaw ngeen ci wax dëgg yàlla vous avez mis tous les moyens de l'État à la disposition des populations je voudrais vraiment gërëm leen ci turu population yi ci disposition yi ngeen jël yëpp pour que bés bi nekk bés bu taaroo nii di nuyu bu baax a baax kilifa yi imaam Aliou Ndione ñu ngi koy nuyu sunu sëriñ di sunu di magu kër gi di magu dëkk bi Ismaïl oustaz nous Nous lay ci Nous, nous bu baax baax Babacar Diouf sama Nous di la marraine de bés bi muy sama Nous est également conseil municipal nous est bu jàmbaare nous nous am ci nous nous baax baax gis ñu nga taxawé ci Jobaas jabas ni comédie. bi di nuyu bu baax famille sunu Serigne Imam Mansour Tine Khalifa jërëjëf ndax serigne Mansour Tine dafa nekkoon gaay man mii wax ak sama doom yëpp Imam Mansour tin moo leen lu ci diine mu ànd ceeg oyof ànd ceeg xam-xam ñu ngi ñaan yàlla yokk leeram xayal ko ci gën a yaatu di ko gërëm bu baax a baax a baax in yirwa fogol ƴungal fof en lema noon besneke a song aliou sar ka bafi sasar a refa ɓiyol jalotimaak jalotimaak ref ɓiyol unan wel fogaamagal ƴunga binuwel musa me yirwanum a garan ƴungan kuta fi'name rek ka warin ku warena fi'me diwarna kon bes neke nu fi'na ƴungan a refan bes ne andoona me gidma nuun de ram saax ka war jega bes ke andoona pour ta lalta ke ten te jooɓa sa miñan jega jambar imam sutinojiki no waagati fomi saha kededa atrena ti ref wiin faaxwe gena kam saare ka lalta in kon keke no fi'na cungan a refan ke andoona saax nu refna waran roy kam jobaas pour que feetkat wiin faaxu jobaas jegna te waagiro ando kam jobaas kam sénégal fo kam adina ram jamono neke refna jikko lenke ka laacu tumarankewo kono faxan bes neke fi'ena wiina lalera ɗatoro a lalera jikko ɓaako keke jaaki fina ha dow aɗa fan exemple kono joko jal fogol dugal keke no fina yasam roga batme jam yasam ke fina fof roga jaɓi mais yirwa ƴay fatou faye a refo yaɗ a refo yumpañ en jogana jal lemtangal o lemtam fogol dugal fof ko rewe fi may darel sama kaddu rek mooy monsieur le sous lii mooy sénégal la fusion entre l'État et les populations L'Imoïta, Sénégal am Founek. il faut une coalition entre l'État et les populations et le secteur privé Nous sommes en compétition au niveau mondial au niveau sous-régional au niveau continental Qu'on ligne nga def à côté des populations qui leur xam ne fu euh, soxal ñu

ma leen gërëm leen sant di jégalu ci kàddu gi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Babacar da nga ma damay toj yax tey moom ñëw ma ko toj yax yax bi yaa koy toj nga toj ko wàccu nga dégg nga xaw ma yax bu bëggoon toj waaye tey moom moo toj benn yax <laughs> jox na la kàddu gi. Ndiobassi TV nañu doxal Ndiobassi.